te te nañ téye nañ ko kiñ téye man du ma politicien dégg nga su duggoon benn affaire su ma duggoon ci politique kon eh? waaw waaye nag yit fu dëgg féete fa laay de waaye war nit ñi ak nax nit ñi hmm? ak ak jaare leen ci yenn système yi du ma du ko def kon ndax yàlla danaa ko seet te yàlla ku ko seet da nga am na am na politicien bu dikkoon ci bu dikk ci man ndax xam nga bu campagne jotee dama naa bu fi kenn ñëw loolu yëg ngeen ko yëg ngeen ko am na ba mu campagne jotee dama a ah, bu fi kenn ñëw waaye am na waajoo xam ne dafa dikk ne ne ne gars yi sëñ sëñ boobu ne kenn fa kenn ñëw de maa ngi fay dem moo demee bu ma dikkee cinq minutes ngeen ñëw waaye dafa mujj na mu dutuma fi waati kenn de ne sëñ tubaay ju raxul dara laa fekk te it nag buñ takkee sama baaraam yi takk sama tànk yi wutim leen sëñ tubaa laa yaakaar kon sama caaxaan du fi jëm man xaju ba ci caaxaan xaju ma ci caaxaan du ma ci dem du ma ci dundit nag moo ci dundit nag waaw waaw jaamu yàlla ak jub daal ak liggéey ak fonk say dëkkandoo fonk say bokk dégg nga defar say defar say say say sa ñi nga dëkkal koo mën a xettali xettali ko koo mën a yërëm yërëm ko koo mën dimbal dimbale ko xam naa ne moom fii ne àddina tukki na ndax géej gi moom bàyyitu fi dara génn bi dañ war xool lu ko dañ nu ko dañ toogee lu ko dañ toogee lu mat a xool la de ku fi dikk te xool ko daal yaakaar naa ne da dañ ne kii li muy def xam nañ ko waaye ba ci ñun yi rek ndax ba ma tàmbalee dox ci àddina ak léegi ba buy sa amut dara amut xam naa lu xew bu baax a baax a baax a baax waaw lu aju ci Europe tubaab yi bëgguñu benn africain sa tànk jàmm ba dégg nga wax nañ ñi it ne jafal lan yëf yi ñii wax nañ ñooñu fi dëkk war a def joxe visa yi jafeel ko su ngay laaj lépp ba mat sëkk nga joxe ko ñu ne la dañ naa dañ naa dàq rek loolu neexunu neexunu rek neexunu rek dàq nan la lu ci kenn kenn xam mu nga loolu réew réew mi la doxewut ci doxalewut fi ñu ko war a doxale fi ko doxale fi ñu war a doxale ku war a am visa da nga am visa boo demee boo demee fa ngay dem la nga fa war a def nga fay def te boo jibbisi jotee nga jibbisi visa buñ la ko defalee balaa visa bay jax ñu ñëw visa yi ma am ci àddina si yëpp benn réew mosuma faa dem ba ba bi liggéey bi ma mayoon ma ma toog ko ba mu jeex déedéet bu defee yaari fan ñett rek maa di génn réew ma waaw su ko dee bu ma dikkaatee ak loolu jaar naa ci yu bare bare xam na xam nañ ma xam ne waaye to dem dem may visa moom nga génn ci xamoo ci looy génn moo metti waaw dugg ci yaa xam ne boo ci duggee du yoo war a dugg a metti réew mi eh, africain moom fi ñu tollu dégg nga mook moo ab sëriñeem africain wittim la dégg nga ab sëriñ wittim la ci Sénégal waaye africain wittim la ci dans le monde ci àddina si dàqum élection ëpp naa waxaat ëpp naa waxaat ëpp naa defaat ndax ñi lekk ba suur suur nañu ñi xiif ñu ngi dee waaw ñi lekk ba ñi lekk ba suur moom seen xel dal na ñi nga xam ne mosuñu dara it ñi nga ñi nga xam loolu moom warta yoon ndax buñ ko laajoon peuple bi peuple bi lànk te it peuple bi war nañu am ci ci réew mi baat baat référendum bi ñuy wax nii référendum ba buñ ko defee te am luñ nëbbu peuple bi ndax be bee dix-huit la woon waaye quinze questions yi lañ génne trois yi dafa jëmoon ci sëriñ si yaa ngi defoon waaye dafa jëmoon ci sëriñ si ba ba sëriñ si biñ ko jàllee lañ ko won sëriñ si gis nañ lépp ab sëriñ jëru fi da nga ko mu nag la xamu yëg nga ko mu waaye nag ab sëriñ moom mënu fi jog mënu fi jóg ku jàq rek ca nga jëm ba ci ba ci ñoom ba ci ñoom rek ku jàq rek sëriñ si nga jëm waaye nag waaye nag di xew nag sëriñ si ko wax lépp waaye nag fii mu fii mu de li ba wax daal moom sa waaye mooy hmm, dàq élection moom bu ko kenn xalaat ah man de ku ma laaj man la bu ko kenn xalaat nañu wote rek bu bu gënee baax baax na bu gënee bon loo xam ne yàlla ak ak nun ak nun dañ ci am par par par dañ waaw waaye nañu wote wote normal nag nañu yëpp wote normal te ba hmm? faat gi ah faat gu bëri ngi faat ci biti itam di faat loolu moom bëri gi mu bëri fer ndax gannaaw eh, dañuy jëriñoo xam-xamu xam fitis xam-xamu fitis ak ak ak nit ci lay ànd ba demoon gana ci marché Gànna boo fa demoon cëri nit dañuy def fii table wax nañ ci def fii ndax lii lépp bopp nit teg tànk yeeg ndigg leeg mbagg yeeg loxo yeeg baaraam yeeg lépp la ñuy jaay ña ngi koy jaay ci Gànna loolu fitis la affaire fitis nag moo ko rey nit nag am na comme jaral lu de waaye moom moom moom moo xam te moo te mooy def lépp te tey yooyu ñuy def ba defee ne nag fitis bi am nangu na ko dañ dem ba mu yàgg yàlla mbirum yàlla ëpp doole fitis fitis suuf ñu daal dañ jàpp ci yàlla te digle wun loolu fii nii ñaa ngi xale yaa ngi réer gone yaa ngi réer loolu yaa ngi koy dégg loolu sa dégg bari na ci réseaux sociaux yi loo dégg nag loo xam ne amut ay xuraafaat la rek xuraafaat mooy loo xam ne dañ ko tàng ci ci fenn rek indi teg ko te te dëgëru bari na lool moo tax fi ne may teree sama ngone yii e, téléphone yi bu guddee nañ ko tëj te di jaamu yàlla mbaa njàng alxuraan buñ gëmmetoo tëdd buñ yewwoo liggéenti seen seen seen mbiri bopp waaye boo fanaane ci portable di xool li li tubaab yi won boo xëyee yenn e, da ngay nelaw booy nelaw kañ nga jëriñ sa bopp doo jëriñ sa bopp ginnaaw nga fanaanee xoole ci li nga xool amul njëriñ yenn ci ci nelaw kon kay perte nga perte nga bés bi ah waaw loolu yooyu yooyu fi mu ne amutoon yooyu yëpp mi ngi tàmbali 2000 ak léegi xam nga xool nga ay 2000 léegi nag moom li fi xew bari na de li fi xew histoire dana ko yéene waat bari na lool bari na lool te te du du ñuy def du ñuy def ay nit la ñuy cocc cocc waaye nag force moom dafa baaxut.